الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم ماكثون في المساجد تلك حدود الله فلا تأوهمها كذلك يبين الغرر الناس لعلهم يتقون Madame Diouf. Ça va, elle Ça va bien. bien. Karine, ça va Allô, oui. Ça va Bonjour toi, tu vas bien C'est bien ce que tu fais. Mon père Tu Ça va, tu vas bien للسابقين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا وكل من الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما Comme euh, ça, il est Halapola. Hmm. Euh, Alhamdulillah. C'est ma première participation ici, quand même, mais une euh, initiation de Yuri, initiative Jordan de Marie, Masha'Allah. En plus, euh, Masha'Allah, je ne sais pas quoi dire, c'est trop excité. ñu ngi siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay di siyaare sëriñ ji ñam sëriñ bi ñu ngi leen di sant cat boo xam ne am na tàmbali waaye amul njeexital et ku ne xam na ne weeru koor dafa metti rawatina boo yoree ay xale nga xam ne dañuy xëy di nafar di jàng alxuraan ba doj jot da di sonn bu ko defee dañuy gàttal kàddu yi rek jox leen ngeen ñaanal ñu. ndax ci def lii du ma sama rakk la waaye suma doom la ndax mooy suñu càkk yaay bu góor rakkam jigéen la muy xale bu ndaw waaye mën naa ne sama papa ak sama yaay yaruñu ko man ak sama soxna ñoo ko yar muy sëñ fàllu sama papa nag tuddee ko sëñ fàllu ndax ku xam sama papa xam ne taalibe akam la woon lépp yàlla yonent bi Serigne Touba rek la daan waxtaane ak kilifa yu baax yi nekk ci réew ak foo mën ne kon bu nekkee sunu caat musuma ko gis ci benn projet lu dul social mhm. loolu day dal xel ndax métier mi ñu ne dafa sensible waaye nag suñu ngànnaay ak suñu wéeruwaay mooy jaamu yàlla rek loolu lañ suñu waajur dëgëral jaamu leen yàlla ba foog ni suba ngeen fi jóge waaye nag liggéey leen ba foog ne àdduna du jeex kon loolu lañ suñu waajur digaloon bi ma ko gisee ci sama rak sama xel day dal kon sëriñ bi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen massaw di sant waa koñ bi ndax nag weeru koor ñëpp dañuy am coono di sant ñi fi fekk ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñu yaatal ñu ci koñ bi di la sant sëriñ bi ndax lii dafa metti lool kon ñu ngi lay santal bu baax moom lii rek sëñ Fallou lañ ko tuddee nag bu defee loo xamante ni dafay jëm ci wax dëgg yàlla eh, diine dëgg yàlla war naa mën a nekk ndax yar nañ ko ci ci la juddu ci lañ ko yar ba noppi ñu tuddee ko si Mouhamed Fadal ah bu mënul def lu baax xaw ma kan moo koy def te nag barki dem ñuy waxtaan këram mën a ko Fallou yow lii ngay def nii man a ko ah, mën a ko yen bi la teen bi rek la yen bi ñëwagul mën naa am lu ne parce que dafa yaru ba noppi di ndaw xelam teel a dem ci partage te loolu yombul ndax lii ngeen ci partage am nañu ko soxla ñu koy ñaanal daal yàlla suturaal ko te def ko mag te bés bi fu ñuy mag yi ñu dem ba wax dëgg yàlla yàlla dem bëpp ko doole daal te am naa ci yéeg bu baax a baax. sa diggante ak moom na ko. sa diggante ah, ak moom sama nit sama xarit bu baax ku mën a tooñ <laughs> ku mën a tooñ sëñ Bakay dafa faal mu kàll te bàyyi tooñ waaw dëkkandoo ko si tali bi ñu ko waaye. suñu xalaat ci ñu ne chaque année dañuy baas ci quartier yi génne ay ndogu joxe ko te pourtant nag am na ñeneen ñi nga xam ne tey boo xam ne sax même bu dee ñoom ñoo a yeyoon ñoom ñu soxla bi ñëw pour ñu ñëw fekk daara bi tey ñëw defee ñu ànd ak ñoom yëndoog ñoom waxuma la sax ndogu bi mais yënd bi ngay yëndoog ñoom rek loolu leneen la ci ñoom moo tax ren am initiative bi ñëw si daara ji te dañ ko bëgg continuer